yéena ko doon laaj depuis boobu ba nëgë ni enfin si na fii ci boutique bu intime femme seen savon collagène savon collagène di savon réparateur di antitage tache acné ak bouton lépp loo xam ni anomalie la bu nekk ci kanam rek savon collagène daf koy dal di dindi ay yamuñu ak yéen ci savon collagen képp de déedéet nee naa saabu bi xew te yëngal jamono di riz bi nga xamante ni moom moo di saabu ceeb ba ay ci di disponible na gluta collagène gel lañ ko daal di liggéeyee waaye nee naa mbakkus baa di savon ni la ak intim femme benn jigen dotu fi am reh mba tache tache mba bouton ci sa xar kanam jigen ñepp seen kanam yi dafay daal di leer nañ nañ ay ci mi ngi ak prix bu xéewale contactel numéro intime femme yoyu eh disponible fi à Dakar la nak wa région xar len TV. abonneel ngir benn vidéo bañ la xëcc. asalaamaaleykum mbokk ATV nuyu nañ leen ziar nañ leen bu baax a baax a baax di si jox kenn ku nekk sa wàccuwaay am contentement ak mbégte dellusiwaat fii seen émission allo Coach Show donc lu muy faral di amee jël li nga xamante ni mooy internet yi question yu ñuy bàyyi ci euh, commentaire yi ñu fas yéene koo jël uniquement macha allah ki nga xamante ni mooy coach As donc du ñu fàtte itam di nuyoo ci ñi nga xamante ne mooy suñuy internet macha allah ci TikTok bi ci YouTube bi. moo xam kër As moo xam waa coach As macha allah ñu ngi leen di béggee di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di wax itam yéen ñi nekk nouveau ci compte bi donc ngeen fexee abonné daal ba seen cloche notification donc comme d'hab rek bi di amee fii ci émission allo coach donc ngeen ci àndal seen xarit seen doomu ndey Mia donc toujours accompagné par coach As coach ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw coach Mia ah, ñu lay delloo nuyo di nuyu mbooleem internetu Kër As TV. Mm-hmm. macha allah di leen jégalu ci euh, gëj a génn bi. ñett fan yi moom téléphone bi noppalawul. waaw <laughs> rawatina waa bitim réew yi nga xam mm-hmm. ne saa bu ñu liggéey jee wàcc. Mm-hmm. vingt et une heure bi moom ñëppay escorté wu toog di xaar notification wu Kër As. Ah, donc macha allah. de retour comme d'hab. <laughs> d' accord donc euh, première question internet bi donc coach kii dafay laajte. Euh, donc question bi bien vrai que tontu nañ ko wat ko. Mhm. mais dama gis na muy insister ci question bi donc nee comment faire pour disparaître les vergetures. waaw vergeture day la ma ca waxoon démb ak barki demb la cay delu waxat mhm. première des choses à faire pour takliko ak vergeture moy wàññi yaram. Mhm. ah oui vergeture d'abord il faut nga xam définition bi lan la ma delu waxat ko. vergeture du dara ludul yaram bu ubbeeku. day am ci góor day am ci jigéen saa boo gisee doomu aadama bi mu am benn morphologie nga gis ni yaram bi fi mu toll nii commencé na di développé wu ala kulli alin foo jaar dafay dafay fett yaram bi mooy fett fett boobu muy fett pour di ubbeeku loolu la ñuy wax vergeture léegi nag pour nga débarrasser wu ci vergeture faaw da ngay utiliser loo xam dafay wàññi sa yaram wala daf koy maintenir tay jigéen ñu bari ñi ngi jënd ay gamme vergeture naan la utiliser naa ko daaw ba ren aw ma ci résultat aw ma ci résultat day fekk fekk yaa ngi utiliser luy dindi vergeture te utiliser woo lu maintenir sa yaram ngay continuer jël poids mais mënoo tàqali ak vergeture d'accord voilà mais nag bu fekkee ne wax dëgg fi yàlla nag bëgg nga wàññi yaram bi bëgg a tàqali ak vergeture mm-hmm. la meilleure solution c'est ici à Intime Femme Intime Femme solution baa ngi fi <laughs> d'accord <laughs> d'accord donc deuxième question bi kii nee na euh, as comment se débarrasser de le stress waaw xam naa ni day bu ñu ko delluwaatee ca lañ ñu jàngaloon ca jamono bi nga xamante ne nii moo ñi ngi def formation. Mhm. donc bu ñu commencé ci li mag ñi doon def mooy stress bi daan nañu utiliser. Mhm. delluwaat sa bopp ci yàlla na tudd yàlla wala leneen ak leneen. Mhm. naan ci satala yu ni mel. mu naan ci satala yu ni mel. aussi nga fexe envisager yow sa environnement. sa environnement bi nga xamante ne nii moom nga nekk. lan mooy li lay jëlee fii nga nekk di la yóbbu feneen. dafay dépendre nag ci kenn ku ci nekk xëy na loolu wàllu coaching lay laaj wàllu explication bu xóot a xóot a lay laaj wax dëgg yàlla pour nit ki mën ko comprendre mais tey liñ ci mën a joxe mooy doomu aadama boo gis tey ci àdduna rek heure bu meree am na loo xam ni saa bu ko defee giif heure bu meree am na loo xam ni saa bu ko déggee giif tey musique dañuy wax naan dafa aram te pourtant am na koo xam ne lu mu mer mer mer mer mer tey bu déggee wàllu xol ba giif tay amna ko xamanteni lu mu mer mer mer mer mer mer mer bu dégloo yusu ndur xol ba gif amna ko xamni su mere bu deglo alquran xol bi gif amna ko xamni tay su mere bu deglo ay xasaayit wala wala wala ta wala leneen xol bi gif donc kenn ku ci nek yow yaay jàngal sa environnement bop lan mo lay delo ci wat ndax ñun ñëpp léeg-léeg ñu rëcc échappé mooy tax ñuy dugg des fois ci ci ci niveau boo xamante ne dañuy àgg ci high level mer wala boog stress wala leneen ak leneen mais toujours lan moo lay delloo si waat loolu nag dafay laaj wax dëgg yàlla benn coaching boo xam ni du ñàkk dinañ ko defal numéro wàllu coaching bi mu jël ñu ci suuf une seconde nga jaar fa bi <laughs> mhm. question bi kii nee na ah, mhm. euh, sama maanaam buy sëy mhm. donc nee na dafay gaaw a daanu buy sëy ak soxnaam day gaaw a daanu donc mu gis ne bu gaawee daanu daanu su paree il faut mu toog ay temps quelque temps pour mën a sëyaat pour mën a bañ a gaaw a daanu muy laaj loolu lu koy waral. waaw ah waaw <laughs> def naa xam naa dafa bokk ci gan yi. waaw nee naa. Mhm. toujours première rapport ci góor mooy gën a gaaw ko deuxième rapport. loolu amul góor bu ci mucc ci àdduna. Mhm. góor bu mu mënti doon tey sa premier rapport moo gën a gaaw fuuf. que sa deuxième rapport mhm. ah waaw premier rapport bi da ngay gaaw a daanu waaw mais day fekk nga am éjaculation précoce da ngaa bokk ci góor ñi gaaw a daanu gaaw a daanu ak gaaw a jóg ak yéex a jóg dafa bokk ci ay signe néew kàttan ci góor waaw mhm. ah, góor bu normalement bu amee ngóor a dëgg daa war di yeex a daanu tey teel a jóg d'accord ah, léegi nag nit ñi def ci amal amalgam boo xamante ne nii maara day taali mhm. bërki démb defe naa ne indi na polémique bu rëy ci benn groupe boo xamante dañ ma ci boole. Mm-hmm. donc ñun wàllu coach ñun ngi ci wàllu ñoo bokk boobu groupe. Mm-hmm. ma leen jusqu'à présent ñun Sénégal mënuñu mm-hmm. éjaculer éjaculer ak lu ñuy wax jouir. bi dafa dafa dafa dafa ci ñun ba. lépp expliquer daf la expliquer ci clair boo ko mu définition bu leer nous sa dañoo jàng tubaab te dégguñu ko. Mhm. namp wolof te dégguñu ko. ñun mhm. moom problème boobu la ñu am. d'accord jàngi woon nañ tubaab waaye dégguñu tubaab. d'accord namp nañu wolof waaye dégguñu wolof. Mhm. boo waxee ñun ci tubaab dégguñu tubaab bi boo waxee ñun ci wolof dégguñu wolof. nit ki mën naa daanu te du pour nit ñi mën maa dégg. d'accord ah, day am. d'accord léeg-léeg mën ngay jote ak jigéen ba sa ndox génn yow góor loolu la ñuy wax éjaculé nga mais zuwiro. d'accord da nga mën nga continuer waat. di sëyaat jigéen da koy dal léeg-léeg jigéen di sëy ak góor mais sotti ndox mu bari nga xam ne éjaculé na mais jouirul doyalul la jouissance du lenn lu dul instant bi nga amee la soulagement instant bi nga rassaisiré nga xam ne lekk nga ba sa biir fees na doyal nga sëkk yaram bi yëpp nee na lasar donc mën nga jouir te doo éjaculer c'est possible léeg-léeg nga gis góor buy sëy ak jigéen ba mu yàgg mu ne lasar mm-hmm. lépp na nepp ci suuf te fekk daanoogul

d'accord luy jëm ci wàllu sexe moom subaati rek. ma <laughs> pare nga ci. maa la wax loolu. <laughs> d'accord mm. donc kii nee dafay laajte. donc nee na sama copine bi euh, wenn gauche bi dafay metti mm-hmm. suy wax ak man appel. Mm-hmm. teg si dafa am infection depuis bi mu nekkee xale. Ah, nu mu def ba xam ne ween bi day métti nu mu def ba xam ne soxna si daa am infection depuis xale <laughs> ah, man rafet njort xëy na <laughs> waxtaan a neex xëy na ñu yegg fa <laughs> xëy na waxtaan waa neex ñu yegg fa waaw damay wax toujours ma ni mhm. anomalie bépp anomalie boo gis sa yaram bu ci bokkul mhm. dawal nga dem hôpital ñu dem seeti ji ko mhm. surtout les parties intimes ci wàllu jigéen dafa doon nekk zone bu sensible tey ween

da ngay gis ni ki ne ci hôpital bi mooy ne ci hôpital bi mooy ne ci hôpital bale mooy ne ci hôpital bi mhm. lundi ak mardi lay lay nekk ci hôpital bi mhm. samedi vendredi lay nekk ci hôpital bale parce que bëriwuñu fi donc nag genre anomalie yooyu man boo ko amee ci saw yaram mhm. bul toog di xaar ay astuce bul toog di xaar ñu naan la diw ci nangam ak pàccalal li ma wax defal Dakar. demal xool di ka xam-xamam màcc jëm ci wàllu ween. mu xool la pour xam lan la. balaa moo ëppi la Euh, sans que nga dem hôpital. ah bien sûr. Mm-hmm. defe naa ni c'est c'est disponible euh, sur la chaîne. bien nañ ci vidéo. Mm-hmm. jigéen mën na def test de grossesse à la maison. c'est possible mm-hmm. bu weesoo signe yi nga xamante ne nii tey mën nga koo jàngee ci jigéen bu ne pour mën a xam ni jigéen bi dafa ëmb yow sa jëmmi bopp mën nga defal sa bopp test de grossesse léeg-léeg nag jigéen ñi dañuy def erreur léeg-léeg nga leen test de grossesse nga gis ku def rapport tey ak waayam xëy suba da lay def test doo gis tus jigen bala mo meuna a xam ni ëmb na day fekk dernier rapport bi ak jour bi mi defé test bi am minimum fukki fan ak djuroom waye def rapport samedi xëy altine da ngay def ci test way foy foy gisse résultat do am résultat d'accord mba ñun la defal test bi nga xëy nek ba sa bir fess añ ba sa bir fess tak sa nga dugg sa salle de bain saw na nga def test waye xoram saak sugol sa nga lek noy amé résultat bu fiable test de grossesse li gën ba gën ci boo ko def à la maison tu le fais avec l'urine du matin moy saw bi ngay njëkk saw ginnaw bi nga yeewoo suba mhm. nga wut def ci cas wut sa xoram tib def ci biir bu fuuree jëm ca kaw xamal da ngaa ëmb bu fekkee da nga ko def mu tek tek karal xamal dara jotul ya yaa li lii na expliquer expliqué nañ ko en image euh, vidéo bi mi ngi ci biir chaîne bi d'accord mais mhm. coach bu fekkee ci walu manifestation mhm. bu manam naka lay manifester au début pour nga mëna xam saa nga def test grossesse bi fofu dafa différent jigen bu ne tay at ni muy yëgee ëmb waxon na la jigen bi am ba am juroom wër te yegul ni da am ah lutax mo am lutax dini de grossesse am jigen ëmb na ba am juroomi wër xamul ni da am lutax parce que amul ben signe bu mu wone ci yaramam non ko yalla bindi tay amna jigen bo xamni tay bu ëmbé mhm. miya ba mhm. toña la tuss amna sar jigen yo xamni bu ëmbé wër wër do mu la da wër koñ bi ñepp xamni ëmb <laughs> fu ñu romb mbacc mbacc pëf fii pëf fële mm-hmm. daqaar ji fii madd ji fii mm-hmm. limon ji fi yaram bi tayal butoo kanam yi commencé maa di taal am na jigéen ñu ñaw ëmb mm-hmm. ngeen baal ma ta jégal am na jigéen ñu rafet ëmb waaw am naa ci garbaat boo xamante ne nii mara day taali moom bu mm-hmm. ëmbee mm-hmm. Eh, macha yaram bi day yong day jongoma yor yaram boo xamante ne day leer nañ ni benn kuy jiw mara day taali donc jigéen bu ne ak manifestation bi mu manifesté woo bu fekkee dafa dafa jël grossesse ça dépend ci kenn ku ne ak sa morphologie wax dëgg fa mm, yàlla mm-hmm.